asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki internet ñu suivre ci Leewtoo TV 100 pour cent lamb nag ngeen di xool ci Leewtoo TV toujours waaye actuellement dafa am loo xam ne dafa dominer àddina bi muy coronavirus Covid 19 comme ni ñu ko xamee loolu nag su amee defe naa ne ngemb yeeg Leewtoo beeg yëpp dañ koy teg ke nale dugg nag ci li nga xam ne mooy l'essentiel bi mooy lan dimbali doomu aadama yi te yàlla tax am na kenn koo xam ne nag xëy na du mbërum lamb waaye mbër la mu nekk muy Youssou Ndoye di international di basketteur tamit suñu nit waaye tamit nekk nitu sénégalais yëpp. tey nag yàlla dogal mu jël ci li ko yàlla may jënd lii ngeen di gis ngeen gis ngeen ceeb bi yéen a ko gis léegi gis ngeen diwlin suukar ak lu ñu raxase ay loxo yaa ngi dégg parce que joxe nit xaalis baax na yàgg waaye lépp solo tamit lii koo ko jox dina ko amal njariñ ak saabu bi ak yeneen ak yeneen loolu la def jënd ci lu baree baree bare xëy na ay mbokkam a ngi nii ay magu yaayam a ngi taxaw magam bu jigéen a ngi taxaw ak yeneen dinañ ñu gën a leeral lii kañ la ko yàgg est-ce def wala da koy door a def parce tamit maar lii am na solo trop te lii dafa jar a pour que sénégalais yëpp di ko roy mu moom na ku ko tudd Youssou Ndoye moom yaakaar naa ne sa dina dem ci Modou Lo ndax ñaar yaakaar naa ne ay doomu ndey lañ ay xarit lañ ma ci profité wàll di nuyu Modou Lo le roi des arènes ak kullu ku nga xam ne nii mbër nga nekk ci làmb ji yaay booy maa ngi lay nuyu di lay ziar. waaw maa ngi lay fay sama doom di kontaan lool ci ñëw bi nga ñëw fii tey ci Sacré Cœur euh, kër euh, ñoom Youssoufa Ndoye man nag maa ngi tudd Koumba euh, Dikel Diawara Euh, jiite jigéenu faamu synthèse si bu centrale bi ëpp doole ci Sénégal ma bokk yaay yuusu ndoy ndey baay yaay yuusu di sama doom joo xam ne macha allah sama xaala xii na euh, lii mu def tey kenn du ne guléet ndax euh, yuusu lii mu commencé nii kii daara yi la ko njëkke daara maamam Cheikh Boukounte bi nekk Pikine ci Papa Kanté te ay xale ne fa di jàng alxuraan dafay dem di fa def yu mel nii di ko fa yóbbu waagu ñaay gi nga xam ne fa la juddoo yaroo fa muy kër maamam bi jur yaayam daf ko fay def bu koor jotee yuusu bàyyiwul dara du bàyyi ceeb du bàyyi duuliñ du bàyyi suukar du bàyyi saabu du bàyyi xaalis waxuma la dara sax xale yay basket ca waagu ñaay bu dee ay daal daf may yónnee ay carton wi carton wi daal ma ko jël di ko jox ASC basket bi nga xam ne foofu man maay présidente bi di ko jox xale yi basketteurs yi lépp ci mbaaxu yuusu bu tuwaawoon jotee yuusu dina jël alalam dugal ko fa kër maamam bi jur ba maamam bu gàmmu njaasaan jotee yuusu dina jël xaalisam dugal ko foofu daayira bi nga xam ne maama ma ko yoroon ca jamono yi maam Abdou yal na yàlla yokk leeram ba tey fa def di jàppale nit ñi te yàlla tax lii nga xam ne nag dafa dal ci àdduna bi lëmba réew mi muy euh, corona bii ñuy wax corona coronavirus bi di Covid 19 bi euh, dañ ci ñaan yàlla dañ yàlla nañ ci mucc mucc ci ak mbooloo mi jullit ndax lii yu su def tey jii dafa wuyu rek répondre appelu chef de l'État ndax président de la république ku ko xool ku ne xam ne ne jaaxle na peuple dal ci bi te di xeex ak koo xam ne mënoo koo gis maanaam invisible la koo xam ne mënoo koo napp benn yoon defe naa ne boo yëkkatee sa kàddu adressé wu à la nation di jàppale pour jàppale ñi nga xam ne dañu nekk ci ay jafe-jafe confinement bi am ndax nee na dina dépense dina génne lu mat cinquante milliards yoo xam ne dina ko def ko ci ay vivres alimentaires yoo xam ne dafay jàppale nit ñi ndax ku nga xam ne confinement bi ñëpp a ngi toog seen kër économie Sénégal doxatul à cent pour cent peut-être ñu ngi dox à soixante ou pour cent te ngi ci ëpp ñu ngi toog seen kër ñi ci ëpp ay néew gi doole nañu ñi nga xam ne dañu nekk jigéen ñi nga xam ne dañuy ci daan doole ndax bu ne secteur de l'économie informelle jigéen ñi war nañ leen ci xalaat ndax jigéen ñi ñooy daan seen doole ñooy dem ci marché yi di jënd jën di jaayaat nekk marché poisson jigéen ñi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci ganaar yi di jaay jigéen ñi ñu ngi partout jigéen ñi ñu ngi fépp nekk secteur de l'économie informelle booleeg tailleur yi suñu càmm yi nga xam ne ay tailleur nañu ñii nekk ay maçon ñii nekk ay menuisier ñi nekk ay ay ay ay mécaniciens nekk ay électromécaniciens ku nekk fu nekk yaa ngi fa yëngatu fu ne lii bu ñëwee dal ci sa kaw defe naa ne bul ne bokk te kenn mënu préparer lii lii kenn munu ko prévoir dans la vie même les pays développés wu mënuñu ko prévoir pour mën a jël seen yenn dispositions nécessaires yoo xam ne su lii dalee seen kaw dina mën a toog seen kër am le nécessaire qu'il faut pour mën di ci añ di red di reer di ndékki mais nag appel bi président de la république def mooy lu Youssoupha Ndoye mi nga xam ne mooy suñu doom te nekk basketteur te nekk ci équipe nationale bu Sénégal euh, di jouer ci Nanterre en France répondre ci appelu président de la République son excellence Macky Sall ak l'ensemble des membres du gouvernement ak les les membres étatiques de l'État lii mu indi fii tey jii indi na fi tubarkàlla macha allah loo xam ne ko na xaj na ki bu dee ceeb rek Youssou indi na 50 tonnes de ceeb jënd na ko 50 tonnes de sucre Youssou jënd na ko bu dee ci diwlin bi deux bidons 5 litres yi am na 300 bidons yoo xam ne mi ngi mbaa lu ko ëpp bu dee di jëm ci ay produit antiseptique yi 500 boîte ngi fi bu dee savon yi cinq 500 boîte ngi fi mais lii mu répondre ndax nit basket na ba jeexal wala nit def ne sport man j'ai la haute compétition Youssou maa ko jàngal basket te am na ci ñoo nga xalaatuñu woon lii di dimbali te yàlla tax mais xale yi tey jii buñ ko jëlee ci Sadio Mané ak ñeneen ak ñeneen ñoomin Ferdinand ak ñoomin El Hadj Diouf ak ñeneen ak ñeneen c'est des gosses yu na xam ne ils sont patriotes réew soo ci nekkee danga ci da da ngay def lu baax def lu rafet damay basket damay def football damay def karaté international la maa ngi rëpp maa ngi joué Liverpool maa ngi joué Madrid de Madrid wala maa ngi joué Monaco beneen club ci monde bi dafee ko ay milliards ak ñoom it Ismaïla defe naa ne lii dafa war a yee Sénégalais yi ñu war a mën a di dimbali te yàlla tax ndax lii dañuy ñaan yàlla xëy na euh, ñi ñoom dañ ko daan def mais lii bu ñëwee it dañ ciy gën a bayaat seen waar répondre à l'appel du chef de l'État son excellence le président de la jàppale ko ci lii ndax l'union fait la force ndax tey jii bi ñu fi amee feebar bi am woo na képp koo xam ne woo na ko muy kilifa diine kilifa aada te ñoom ñëpp aussi dañu sukkandiku ci appel bi nga xam ne moom la def ànd ci ak moom pour mën a xeex xeex jàngoro ji nga xam ne moo ñu rax kenn mënu koo jàpp ñu war a nekk guerre mondiale ak moom kon mbokk ñu ngi koy gërëm yuusu di ko sant di gërëm nag ay waajuram ndax nit boo defee dara nañu ne est-ce que ay waajuram nang euh, jax euh, kii nan diw baax nañu ne ndax mbokk yaa ko mbokk yaa ko wax ndax papaam ak yaam tamit dañ leen di gërëm di leen sant ndax Youssou mënoon a gi jógi def ñu ne bu ñu tiitoon du ñu ay nit ñu tiit nag ah parce que lii il a dépensé plus de 10 millions ci li ñu waxante dëgg mënoon nañ ko ne ah wàcc ko fi ñu lekk naa ko mais Youssou bokkul ci famille gu mel noonu ndax bu ne kuy sa maam koddu ngom jenn bokk ak sëñ Isaa jenn benn bàyyi ma liggéey sëñ Tuubaa ma ne ko deman la gën ma fekk la fa ak la gën ku sa maam Cheikh Ibra Fall ndax mbërxat faala jur yaasin faal yaasin faala jur kondongom jenn kondongom jenn bokk ak sëñ Isaa benn baay kondongom jenn jur maam bi jur ndeyam ëlbatiku jur Cheikh Bukunta borom Njaasaan defe naa ne yuusu du ko tiit yuusu lu mu am la maamam yi daan def moom la def la maamam yi daan def démb ak barki dem moom la def maamam bu jigéen sa maam kondongom ca Tiwaawan ku ne xam na ko maam Alaaji Maalik xam na ko maam Abdou Aziz Sy Dabakh xam na ko ndax sama kër maam la njëkk ma papa Abdou Bare daaraam ndax moo ko sama yoon papa àndoon ba ñu nekkee xale di ndaw kon boog defe naa lii bu ko defee dañ koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla fan bu gudd bu ànd ak wér te lii mu def nii fami kër baayam xam nañ ko famille kër ndeyam xam nañ ko tiwaawan gama maamam dëkk muy kondongom jenn ku ko weddi laaj ko alaaji Mansour bay xam na ko yuusu def ko fay def di ko def kër maamam Cheikh Boukounta borom Ndiassane lii yuusu li mu def nii kenn du mais nag dafa fekk nag nag kilifa gi su wootee lii am situation am ci réew lu mel nii am dal ci askan wi nit ñi buñ ko caaxaane parce que sénégalais yi nañu bàyyi que feebar feebar la ndax ña ngi ñette yàllaa koy indi yàllaa koy teg doomu aadama lii yàlla indi suñu kaw nag punition divine la na ko nit ñi xam ñu delloo suñu bop ci yàlla ndax ñu ngi xeexal koo xam ne kenn gisu ko xamuñu foo koy nappee defe naa war nañu del te bàyyi caaxaan bu nee couvre feu couvre feu la nit ñi toog seen biir kër yi ñu waxante dëgg xale yi toog seen biir kër policiers yi ñuy ñaawal ko kokkali yooyu du ci yar du amul du yar teg new teguwul ci yar teguwul ci teggin ndax xale yu góor yooyu ku ci ne jàng ba am sa maîtrisard les policiers d'aujourd'hui là dañu ay ay abdu amuñu COP de du politique mu jamonoy policier yi policier di am COP de soo dee maîtrisard ay xale yu góor yu ndaw na ñu jàng am seen i lijaasa ñu ñu nekk police opté pour nekk ay policier kon boog buñ leen nee dugg leen nañu dugg te bàyyi fo te tamit ak bàyyi caaxaan te am na ki yenn li ñu nga xam ne man Sénégal boo mënu ma leen a sutiyee lii am ñu naan waru leen nga dóor nan leen nan leen wulli làpp leen ba ñu toñ ba ñu yar leen teg leen co pour ñu toog seen kër yi parce que tey jii fukki nit ak ñett ñoo ñu anee woon Chine te nan leen indi mais ñooñu bu leen indi woon fii feebar bi ñun ñëpp ñu dee fan nañu jëm kon bu boobaa fan nañu jëm ah, doy na waar kontaan ci yow bon sant yàlla rek julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw doy doy na waar mami maa ngi lay ziar yaa ngi delloo ziar am nga jàmm Babacar sant yàlla yow yaag yu si bokk ndey baay ki wax nii di sa magu yaay boo ko si yaay ndey baay mu mel ni dafa am benn kilifa mu doon dégg yàgg Cheikh Abdoulaat muy wax ne lu baax dañ koy fësal pour ñi ko mënta def ñu mën ci roy yaakaar naa mooy tax lu mel ni ñu di ko wane yow ki nga bokk moom ndey ak baay muy sarak tey lii mu def nii loo ciy sànni ci lu gàtt lu mu yàgg def la wala parce que yaay bi yaay booy sànni yàgg na koo def mais yow loo ñu ci mën a dëggalal dëgg-dëgg. waaw maa ngi nuyu ñëpp sant ñëpp <laughs> waaw effectivement rek comme li sama tante bi wax rek Koumba Dikel Diawara euh, lu muy lu Youssoufa yàgg def la et tout loolu moom euh, ñëpp seede nañ ko parce que su koor koor jotee même denrée yi lay jënd ceeb diwlin euh, suukar et di ko séddali ci daayira yi. ak eh, ci koñ bi sama koñu kër maam waa waagu ñaay kër bu nekk dañ fay dugg eh, dugal fa ay denrées et tout donc tey eh, su feebar bu mel nii ñëwee aussi mu woote waat ne day def participation wam pour répondre à l'appel du chef de l'État dimbali population sénégalaise bi parce que ku nekk xam na ne ñun pays bon en de développement je vais dire donc il faut ñu donner un coup de main à l'État pour jàppale ko ci xeex bi parce que lu ne ku nekk xam na ni que lu metti moo dal euh, ci kaw euh, àdduna bi yëpp ah parce que du Sénégal kese donc euh, moo taxoon Youssoufa ne day ñëw participer daal pour jàppale population sénégalaise bi et tout donc comme lu sama tante bi wax rek du ñu ne guléet parce que lu mu tàmm def la donc nit koo xamante ne vraiment ku social la tàmm na di dimbali doomu aadama yi et tout donc euh, lii moom dafa yokk ci xar bi karaw rek comme on dit mais euh, du loo xamante ne mi ngi koy doog a def voilà. <laughs> soxna si tur bi. Mm, man ab salaatu du. ñaan ah. madame Ndiaye waa. loo bëgg ak Youssou yow. Youssou man Khadija sama xarit la mais mun naa ne Youssou sama grand frère la parce que man mii di wax ak yow man xam naa ne day def teranga parce que man dara dara dara sama wàll dama koy jot tout le temps. te lépp nag comme li maman bi wax rek bu nit baaxee ñu ne ndax ay mbokk ma ko wax mënoon naa am envisage def li ay mbokkam ne ko téye ko parce que jamono neexul mais vraiment ku baax la ku social la ñu ngi koy ñaanal lu mu mën ren mu mën ko déwén di gërëm sama xarit bi Khadija nag nga xam ne mun naa ne mooy conseil Youssou Ndoye munoon na ko ne lii nañ am fuñ ko dugal waaye daa yokk bagage yi vraiment te répondre na ci appel président vraiment ñu ngi koy sant di ko gërëm merci beaucoup parce que ñun tam faaw ñu rax ci tuuti lam parce que diggante Modou ak euh, Modou Lo roi des arènes ak Youssou Ndoye daa mel ni am na benn relation bu dëgër bu fa am de mami <laughs> waaw c'est vrai ñoom ñaar ay doomu ndey lañ rek ay euh, xarit lañ ànd bu yàgg la et tout Modou Lo nekk euh, suñu frère suñu xarit nit ku baax et tout vraiment di Youssou Ndoye di rakkam di daf kay conseiller et tout franchement gis naa ne ñoom ñaar daal seen relation weesu na sax léegi ay xarito parce que Modou daal ku baax la ñu ngi koy gërëm di ko sant moom tamit bu baax. ban appel nga koy lancé moom tamit ci lu mel ni parce que borom tur la itam te tamit sénégalais yu bëree bëree bari tey ñu ngi koy roy ay rawatina ay soppeem loo koy wax ak ñeneen sax yeneen sportif yi parce que du moom rek mbër yëpp ngi fi Balla Gaye de mu ngi fi Bombardier ñoom ama seen Gris Bordeaux Lac de Guiers ñoom ñëpp ngi fi ah. waaw loolu dëgg la ñoom lancé appel bi ñu leen di lancé rek mooy euh, nañu génn nañ génn sensibiliser population bi parce que surtout ku mel ne Modou Lo nit ku am mbooloo la donc euh, jeunes yi dañuy roy ci moom dañ koy déglu et donc franchement je lui euh, li ma koy conseiller rek mooy na génn wax ak population bi wax ak jeunesse bi def ay vidéo et su ko yàlla dimbalee tamit mu def ay don comme nii rek xaw ma ndax def na ko ba pare ou bien mais euh, ci lu nekk lu ku nekk rek lu la yàlla may ci sa doole rek nga jàppale population bi et tout même comme li président wax rek même bu dee 5000 francs sax bañuñu ko lu waaye am rek na ko indi ñu jàppale nit ñi et dimbali leen daal ba ñu xeex feebar bi mu jóge fi ci jàmm ak salaam voilà. fu yàgg kon noonu la demee ah yàgg maar gis nga kon noonu la demee comme li ñuy waaw waaw ñaan si ñaan si yàlla rek parce que tamit waaw li yaay booy wax Kumba Dikkel ndax ñun daan nañ dégg turam ci basket bi rawatina si suñu papa Ablaye jaw man sa laata ma koy gis tey sama nopp yi waaw dal na ci moom avant tout waaw ñuy ñaanal Sénégal ñëpp. di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne lii moom vraiment geste bu noble la parce tamit nit ku nekk li nga yor ci nga mën a dimbalee boo nee dama yor 5000 francs mënu ma cee mais kuy dimbalee ci 1000 francs bis bu yoree koy ñaanal yàlla di ñaanal tamit doomu Sénégal yëpp fu ñu mën a nekk rek rawatina ñi nga xam ne ay moodu mën lañ nekk à l'étranger dund ba metti na actuellement mais nag yàlla mu ñëw ay dogalam dogali nag li ñu ciy dimbali mooy ñu nangu ko te yàlla parce que tooñ yàlla sax mën na am du ko yokk wala mu koy wàññi mais maar ma di la tooñ te tay ko wala may tooñ keneen te tay ko ak waxalante lu ñaaw li nan ko bàyyi jàppante te yàlla tax di suturaalante lii moo fi ama Sénégal nag yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi def ko ci àddina bi yëpp même am na ñuy gis ñuy profité ci lii di sànni xeer ay kilifa diine di wax ay wax ñu ngi leen di gis yooyu jaru ko kilifa diine yi li waroon war def def nañ ko Serigne maam alaaji Malick noonu maam Limaamu parce que ñoom la ñu war a def yëpp def nañ ko seen njaboot itam ñu nga ca kaw loola yow mi di taalibe nag nekkal ca loola ndigal nag dañ ne caabi la yàgg su ëppee du ubbi boo ko yootaanee yàq kànnaar bi kon yàlla nañu yàlla defal jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam